ba léegi ci erreur yoo xamante ni yu doy waar la ci julli subhanallah ñu bari dañ koy def da ngay gis ko naan day ju allahu akbar nga war a xool yow mooy fooy sujjóot mooy sa kanam waaye nga gis ko day julaan alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki yawmi din di xool ku romb mu xool ko di jàng des fois am ñu naan nii di jàng di julli ñenn ñi sax dañ dem di xool seen montre wala ñenn ñi naan nii bismillahir rahmanir rahim maliki yawmi din lii baaxul fexeel ba bul dajeeg yàlla ci julli bu mel nii